téléphone 77 394 73 73 agence Techno Habitat mooy ca Habitat offert. yaa akramal kurama yarama ruama yaa luqaba luqaba barda ahra audu billahi samil alim min alsheytani irrajim wala hawla wala quwata illa billahi alaliyi alazim bismika allahuma ya alimu allimna min ilmika ma tarda bihi anna wala tuwaxidna bima taalamuhu minna ya alimu xaqiqna bi xaqaiqi alalimu wa ya alimna xalliqna bi xaqaiqi alalimi subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alxakim wa sallallahu wa sallama wa baraka wa majjada wa sharafa ala almabuuti rahmatan wa hidayatan lil alamin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man iqtafa wahtada bi hadiyihi ila yawmi ddin ixwaani axawaati fi llahi lillahi wa ila llah niyaabatan an ilxalifati assayid aboubakar mouhamadul mansour niyaabatan anhu aqulu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi bu ñu musloo ci bakka nag seytaane ba pare ñu ngi ubbee wax ji rekk ci turu borom bu tedd bi subhaanahu wa taala mi nga xam ni moo bind ñëpp moo amal ñëpp moo amal léppit di ko sant bu baax a baax di julli ci saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak njabootam gépp di yëkkati kàddu nag ci sunu turu kilifa muy sëñ Babacar Sy Mouhamadoul Mansour yal na ko yàlla saxal te baati nuyoo yi mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di ziyaare senegal gépp mboolem jullit bu fi nekk rek sëñ Babacar a ngi lay nuyu te di la ziyaare di feddli kolli rek yi nga xam ni moom la ñu yàlla boole ñun ñëpp te moo di innamal muminuuna ixwa jullit yëpp ay mbokk lañu muy yëkkati kàddu googu nag jëme ci képp koo xam ne kii yaa ngi ci dëkk bi tey wuyoo turu jullit mu ngi lay nuyu te di la ziyaare di feddli kóllëre gi nga xam ni moom la leen yàlla boole wax ko ci alquran miraaran wa takraaran innamal muminuuna ixwa yooyu yëpp mu ngi fi fa tabaarakallahu kon mu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara ñu am nag lu ñu yëkkati loo xam ne lii ba mu xewee it yëgaloon na ko ñëpp muy natt bi nga xam ni moom la fi yàlla wàcce woon nattu boobu nag ba mu xewee na mu ko waxe woon mooy daf ko sukkandiku ci turu borom bi subhanahu wa taala mi wax ni wala tulqu aydiyakum ila tahluka bu ngeen gisee loo xam ne lii dana jur loo xam ne lii ngaañ lay nekk ngeen moytu ko moytu googu nag ci la nekkoon ba waxtu wi teggiwu ci tànkam bu ñu demee ci imam malik imam malik toog na ay weer yoo xam ni demu ko ci jàkkat ndax daw loo xam ne lii dafa amoon ba tax na loolu nag bu wàccatee di dox ba waxtu wi mu wàccaat ci ñun yàllaa ngi ñuy moytuloo wala tulqu aydiyakum ila tahluk ni ñu ko waxee woon léegi kon sëriñ bi nag di yëkkatiwaat kàddu di wax képp koo xam ne kii wax ji agsi woon na ci kaw ci sa kaw ba nga fogoru ci ànd ci ànd ak moom ñi ñi ñi nga xam ni àndoon nañ ci ak ñi ci àndul yépp mu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen xamal ni nag inchaa allahu taala ñu ubbiwaat jumaa yi ci képp koo xam ne kii rek waxoon na ko nga ànd ci ak moom mu ngi lay xamal ni aljuma bii di ñëw inchaa allahu taala danañu ubbi jàkka yeeg ubbi nañ jàkka yeeg yëpp ñun ñëpp rek ñu ànd delluwaat ci jàkka yi waaye ànd ak moytu te déglu docteur yi li ñuy wax ba nga xam ni bu lu xew rek ndax mbir mi ci ndoxal yàlla la nekk jeexagul kon nag ñu ànd ak di dem ci jàkka yi waaye di ànd ak moytu yooyu yëpp sëñ Babacar wax na mu ngi nuyu ñëpp nag di baalu xaq ñëpp incha allahu taala ñu bàyyi ko ak kàddu gi